ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre ci seen bi di Likzo TV mais gars yi ñu déglu révélation yi nga xamante ne bi Pape Sidi Fall def na ko ci diggante Sidi Seck ak Waly Diop gars ñu deglu ko bu baax a baax salut les gars j'espère que vous allez bien yéen a ngi fàttaliku am na benn un moment donné dans dans le Sénégal là on avait nous dans le hip hop des problèmes hein. on avait des problèmes genre like avec euh, des problèmes avec Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé Omzo Dollar euh, voilà le hip hop était en clash en ébullition quoi Et qui était là pour Khambutalbi Oui, Abano Stress. <laughs> mais temps yi dama dégg ne seen waa ruq bi ñoom am nañu ay problème clash buggal génnal te dégguma leen ci de ñoom mais Abba tu vas avoir mal la ci bii je prends le dossier de Sidi Diop et Wali Seck non non de Sidi Seck Wali Diop en main dinaa def coppe ci bii ñam ci bii bii ne ko rajax ba nga foog ne dama dof yow reewoo sax yéen réewoo leen waa mbalax bi xamu leen sax nu ñuy classé je vais faire le njaxas mélange ba ngeen jombi tu vas voir mal mais mal.